ay gi neex na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xal yoonu mbàkke sengul waxtaan muy sama xarit man waa boo gisee sëñ Fallou ñun lii mu bàyyi tur nit ñi. incha allah ba ñu wut ay dëkk sanc fa daa fekk mu mu sanc Ndindi ba mu ne ko ci ma ko dugg foofa la dégg ba de ñu ne ko mu ne moo tax sëñ Tuubaa wutu ci tur sëñ Tuubaa moom moom dugg Ndindi mm-hmm. ah, ah, gi moom nun noo ko moom mm-hmm. tubaab ko ki la ko ba na dëkk yi mu ko def ndax def na ko ne bi maraam noonu nii ak à ah, 1955 ñëw na fa ci waxtu fekk nu toll ci juddee xarit bay pëndal ma sama dong ñi ngi bëgg a dee nañ wax waat li li li li dimbali ci ndékk mi daal di daa mu woon nag te jóg ne nag dama léegi nag dama bëgg ma bëgg waxtaan ak yéen waxtaanu ah, taalibe ak sëriñ waxtaanu ndey ak baay waxtaan waxtaanu ndey ak doom waxtaan doom ak ndey ah, ak ak waxtaan ak ah, taalibe sëriñ sëriñ taalibe waxtaan ak yéen waxtaan ak xarit ak xarit ba te di leen nekk te xam ne yéen war ngeen sant yàlla bu baax a baax ndax fii kat bëgg fi ñëw taxu fi ñëw bañ fi ñëw tiw fi ñëw ah ku fi dëkk dama cee danga cee ba ko boole ci dem ci réew ma gantaan tànn ak réer bu gën tànn ak gën ci ko ba ngeen di mbooloo mi ndax yéen kat war ngeen xam ne yéen li ngeen liggéey bi ngeen liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko sëñ Tuubaa sax moom ko yàlla yoon bee ko moo ko mënut a ñàkk waaw mm-hmm. ah, daal ba mu bëggee jumaa dafa ñaar borom daal borom daal nangoo ko borom daal daal di yónnee ay ndaw ne leen si suuf sax ndax attan na jumaa mooy suufu Tuubaa bañ ko seetee as ah, yoon ñu dellu yo yeneen ndaw ne leen ba xam fa doj am nee na ko ñoo Ibrahima ndaw bàyyi sëñ ndaw mi ci liggéey jumaa ji ña am na xur ndox la bu ñu xur ndox gis naa fa ay doj nee na maa ngi ñëpp a waa Thierno ne ma sëñ Fallou yow mii ndaw la sa wax dama seet seet dëgg bi mu am tak sa wajan naa doj su ma jaay bint ak ñeneen mm-hmm. digi fab ca doj yooyee am bu ko andi nee na ba ma ko yëgi sëñ Touba sëñ Touba ba mu seet doom dafa ne du mboolem daa wax naan dama laa bëgg la mooy mooy mooy liggéey bi te dëkk nag mënut a ñàkk rek mënut a ñàkk rek. Mhm. te bu ngeen ko liggéey ba àll bu ngeen ko liggéey wàcc ko liggéey. yoon la xaal nañ ko ba mu yegg nag ñu denc ak yi maasale pax loo mën na ko yow sa tool loo mën na ko ci def. Mhm. bul geesu gannaaw bul geesu kenn. Mhm. nee na mm, waaye nag moom sëñ Tuubaa mi ngi fi boo gisatu ko ci saa yëngu. sëñ Mourou Moussa Sama ak yu baax yi jàmbaar loolu waaye boo jamono jii dafa naqar deret bëgg sutuma ko. Mm-hmm. léegi euh, dëkk bu dëkk bu toll nii ba euh, te xam ne ay nit ñu bari ñu ngi yewoo ci dëkk bi. Mm-hmm. te dañuy xëy di dem Touba ak a ñëw ak yeneen dëkk ndax aw yoon. ndax dëkk bi am na ko wala ran bi ñu ko fi def ak léegi kañ la jamono Sëñ Fallu wala léegi. Mm-hmm. yan jafe-jafe ngeen am daal ci dem di bi. jafe ñu tawat. waaw ma ñëw foofu. waaw ah, ma ne nag. ba ba ba nag ba ma gisatu ma sëñ Moussa ma ma jur nag nee na ma suba ba ma jur léegi soo na ak bokk yi soo a tubaab yi soo ak wolof yi. bokku ci bokku kuréel yëpp naa ne soo sànni ci àll bi taxul nga noppal soo nga ne ci liggéey bëggam. yéen ak a ci liggéey bëggam. ni xam ne nag mboolem Cheikh bi ngeen ko bu fi digg yéen a ko foofa. Hmm. ndax ñooñu ñii dañ daa dañ daa taxal di ko rotal di ko laakal di ko sàkkatal di ko digal yen yéen nag yéen la yéen digal di tëralal ko yéen war yéen sant yàlla ndax bu leen digal di jiitu woon kon da ngeen kon kon da ngeen gis gannaaw di ngeen jiitu woon digal di ngeen koy jiitu yéen dañoo moom ko gàttal koy itam kon yéen itam leen di jàpp nag ko nag yéen war baax a baax mm-hmm. ndax lu Cheikh rek léykat yéen mm-hmm. na ngeen xam ne ah, man maay seen yu Cheikh su yéene seen yu yi loolu baax na bu baax la waaye mën naa ci wax ba ba changé waaye ma dagg waaw. kon nag yow fii dëkk moom aaj moom moo bëgg nañ ko doole son islam bëgg nañ yoon bu baax waxaa ne mm-hmm. bëgg dem Touba daal dem ñëw mm-hmm. ndax fii daanaka Touba mooy mooy mooy marché bi mm-hmm. da a dem Touba dugg daal di ñëw gan bëgg si yoon yëngu daal dem daal ñëw yoon bu baax mooy tax wate yi sawar si ndax ko mooy tax boo bëggee watal sa ko am ci yomb bu budul loolu nag yi dañuy jafe loolu dañ lay laaj doo ko mën a taxaale kon foofu sooy tam tam loolu yéen yàlla tam la jàmm jërëjëf Baye Mor dafaat li ñu tur bi Baye Mor ma Basilo. Maro Basilo.